asalaamaaleykum sama abonné kontaan naa bu baax yéen gis naa abonné gis naa commentaire yi bu leen di fàtte di abonné ci seen bi may ko doole maa ngi ñëw te ci mercredi mu nekk faakup diggante Tottenham ak Sheffield United mu nekk international sénégalais muy kan Iliman jaay mu nekk attaquant te tamit wone na boppam mu duggal bii bi bu rafet mu ngi dugg soixante-treizième minute la dugg moom Iliman Ndiaye ba mu duggee ci la changé match bi mais bu mu duggee ci la dugal biwu victoire maanaam mu permettre Sheffield United gagné facilement Tottenham mu nekk lu baax ci international sénégalais muy kan Iliman Ndiaye mu ngi wane boppam ci équipe Sheffield United mu permettre Sheffield United dóor Tottenham ci FA Cup facilement un bisa Quand kan moo bi bi bii bu rafet moy Ilman Ndiaye ci soixante e minute la dougou, mu def différence mom ilman mon mu nek mais à tout moment des def différence te tamit def na différence mu permettre United gagner facilement Tottenham bu Pape Matar sar moy diggante Pape Matar Sarr ak Ilman Ndiaye finalement nak ilman Ndiaye mo mujjé gagné Pape Matar Sarr ci FA Coupe tey ci mercredi moom lañ leen indiloon man seeni alamu tay sport ba yeneen vidéo